par exemple ñun gis gis gis nañ Sadio Mané niveau bu mu nekkoon quoi dem ba deuxième ballon d'or ballon d'or mondial. fan la jugee soixante santam. bëri mm-hmm. jour si génération future bi nga yaakaar ni sañ nga teg si moom. il sera capable de réaliser ce genre de performance dem ba si haut niveau bi di concurrencer avec les plus grands ban jour nga sañ sànni sa carrière gisaguma ko mais am na ay talents am na ay talent yu mën a def carrière bi Sadio Mané def wala plus Sadio maane bi muy ñëw pendant vingt ans bi muy ñëw Sadio Mané bi muy suivi pendant vingt ans al euh, El Hadj Diouf moo moo moo téye woon vedette Sénégal maanaam bu ñu ñëwee Sénégal ñëpp El la ñuy wax mais Sadio Mané moo ñëw de loin ñëw détrôner El Hadj ba gars yi dem banaan saajo maane Mané c'est le c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal kon Sadio il du mérite maanaam Sadio. même bu fekkee mënatul sax il a du mérite parce que tol biñ toll ci def ko passé ko bàyyi ko Sadio biñ ci toll ñëpp xam na ni Sadio Mané a fait son temps Sadio Mané a eu une progression plus fulgurante Sadio Mané boo xoolee de club en club da ngay gis ne day progresser Sadio Mané de de génération foot à FC Metz Sadio Mané boo xoolee génération foot FC Metz si je ne me trompe pas Mohamed bu ma juumee nga rectifier ko 6 mois la fa def. waaw yàggu ko. Salzbourg ñëw teg xaalis mu dem Salzbourg def fa 2 ans xaw ma. Dortmund club bëggoon na ko jënd bi mu nekkee Dortmund Guardiola bëggoon na ko jënd na de Munich comprendre nga parce que ci pré-saison la ñu doon jàpp di rey maanaam sa progression a toujours été comme ça. maanaam Sadio saison da ngay gis ni day progresser gis nga même bi mu nekk Southampton première saison bi ay 9 bi lay am ay ay 10 bi. deuxième saison ay 12 bi ay 14 bi. à Liverpool c'était comme ça da doon am ay 10 12 bi saison yi topp bi Sadio Mané dem ba nekk le meilleur co-meilleur buteur en première ligue. waaw loolu loolu c'est à hmm. kon saajo maane a toujours eu une progression de saison en saison da ngay gis ne Sadio Mané day évoluer. da yow yow mais yow instant yi amoo benn jour boo xalaat nii amoo sax pour ku la traversé sa bopp déjà parce que maa ngi gis commentaire yi ñu wax Lamine Camara Lamine Camara la ñu wax ak Amara Lamine Camara peut faire mieux que Sadio Mané Iliman Ndiaye peut faire mieux que Sadio Mané Amara Diouf peut faire mieux mais loolu dafa laaj ay sacrifice dafa laaj ay sacrifice parce que le temps gis nga parfois y a un proverbe proverbe bu wax ni l'entraînement tue le temps quand le temps ne s'entraîne pas waaw est ce que dégg nga lu ma wax dégg na wax ji leer na lañ l'entraînement tue le temps quand le temps ne s'entraîne pas mhm. et le talent sans entraînement sans sacrifice c'est rien du tout Cristiano Ronaldo dama laaj ko dama laaj ko Balotelli dama laaj ko Ben alpha. dama laaj ko tous ces joueurs là yi xamante def ñu loolu ñëw sama question El Hadj Diouf. bagage technique mm-hmm, El Hadj Diouf techniquement techniquement il a plus de bagage technique que que que que que que Didier benn Samuel Eto'o. waaw mais gars yi lan moo tax ñu gën ko sax ñu gën ko carrière El boo xoolee bu muy bàyyi El Hadj Diouf bi muy regressé El Hadj Diouf kan 2004 rek El Hadj Diouf dafa toj 2002. deux mm-hmm. ans après kan 2004 El Hadj Diouf mënatul a titulaire équipe nationale. mais El Hadj Diouf mooy sama joueur. mais El Hadj Diouf après kan 2006 kan 2006 xaw ma. Diomaye hmm. Camara moo ñëw nangu place am équipe nationale. mais El Hadj Diouf c'est un talent inné El Hadj on parle de football seulement football rek la ñu wax. talent waaw. xoolul xoolul Drogba xoolul Eto'o. Hmm. mais ils étaient plus sérieux ils étaient plus professionnels. ñoom ñoo ko gën a def ay sacrifices ñoo gën a nekk professionnel hygiène de vie waaw Sadio Mané boo xoolee techniquement il n'est pas plus beau que euh, kii nu mu tuddati. mooy Sadio Mané kii El Hadj Diouf. waaw techniquement pas plus beau que Wilfried Zaha. waaw Sadio Mané techniquement il n'est pas Neymar le coup droit aller-retour. Mhm. mais pour man Sadio Mané a une bonne une meilleure carrière que ça Neymar. Neymar waaw. Sadio Mané a prime waaw Sadio Mané parce waaw. Sadio Mané a fait une meilleure carrière que Neymar léegi moo tax man la booy yi ma limal nii le Sénégal a toujours eu des talents pour nga yegg def li Sadio Mané def ça demande des sacrifices parce que jàppal ne chaque saison gis nga Lamine Camara tey bu ñëwee saison moom cinq bi war na ni saison bii di ñëw war naa am dix bi Nicolas Jackson daaw am na douze buts xaw ma ren li waroon nekk objectif principal am s'il pleuve ou qu'il neige damay assurer vingt buts

affaire bi da gis nga ay tey la yooyu moo koy laajte façon donc am ma pardon pardon yi commenté dafa mel ni xam nga danga ma dagg ca kondéew ma dafa mel ni ils n'ont pas bien compris parce que dama dégg ay élevé ñu naan ay yam ngeen Neymar ñi dañoo jum Neymar je ne compare pas Neymar à Sadio Mané dama ni Neymar bu dee football rek il faut droit bu fekkee xamu leen lan mooy verbe foudroyer ma wax leen ko ci olof Neymar boo man gis mais dama bu fekkee carrière la ñuy wax li Sadio Mané réussir ci football Neymar réussir ko mañaa nañ wante dëgg. am Mohamed nañ wante maa ngi bon Sadio Mané Neymar Neymar prime du côté de Barça c'était mais comme extraordinaire ak mais mais mais mais a plus de buts que Sadio Mané mais bon loolu beneen débat fuñ ko doon prédire fuñ ko doon prédire non non Mohamed Mohamed s'il ma leeral loolu gars yi moom maa ngi ko leeral loolu je ne compare pas Sadio Mané ak Neymar. Ah, Neymar moo dàq fubal ne Sadio Mané ma wax ko ci olof. mais dama ne bu fekkee carrière lañ wax carrière bi Sadio Mané def. Neymar Eden Hazard moo dàq fubal saajo Mané mais Sadio Mané carrière bi mu def Eden Hazard def ko gars yi je suis prêt à discuter avec n'importe qui laa la ak ku mu mënti doon. Sadio Mané kan moo mën a taxaw ni ma Neymar moo ko doon la carrière. loolu Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions. Sadio Mané a été deuxième au euh, du championnat Angleterre. Sadio Mané a gagné quelque chose avec son pays. Neymar l'a regagné avec son pays. Neymar n'a jamais été deuxième en classement Ballon d'Or. Bon, Ndiolme, Ndiolme. Neymar n'a jamais été meilleur buteur. Ndiolme, oui, moi. Waaw. gars yi dañuy comparer prime à carrière c'est pas la même chose. Je waaw Neymar à son prime moment mën du Sadio Mané loolu dañ koy Neymar prime Xolou sax Sadio Mané Neymar maanaam Neymar bi Santos ñëw Barça Neymar de Neymar même Neymar bi soog a dem Paris sax muy woon ci prime am Neymar boobu moo mën Sadio Mané mais si on parle de carrière li Sadio Mané réussir ci carrière am moo gën a baax li Neymar réussir ci carrière am carrière u Sadio Mané moo gën a complet carrière c'est ça mais boo xoolee mais maanaam maña maña maña xam nga ñoom pour ñoom yow boo nee diw moo gën carrière yaa dàq ko Neymar moo dàq hmm. football Sadio Mané loolu kenn werante wu ko hmm. mais carrière li Sadio Mané li Sadio Mané réalisé ci football Neymar réalisé wu ko nekk carrière quoi carrière ñoom ñu kii Aliou mu dugg mu dugg si même sujet bi da doon si am sa xalaat par rapport ak Neymar bi ñuy wax ak kii bi ak ak kii Sadio Mané et la question ba tamit ban bi ngay jour boobu c'est quand même intéressant ban jour ngeen yaakaar ni mën na nekk au niveau de de Sadio waaw man je pense je pense ñii nii di xaw ma gars yi ñoom ñoo bañ a dégg xaw ma ñoo dof dofu ñool mi lu mu wax leen naañ léegi question laa leen di posé Neymar réussir na carrière mu la réussir ko. ak Sadio réussir na carrière am wala réussir ko ak si ñom ñaar kan ngeen gëna jox réussite sur le plan projection Neymar manam début de carrière am fi ko doon nat ba xam egg na fa ak Sadio début de carrière am fi ko doon nat ba xam egg na non lañuy la ñuy comparer Reus wax na am solo gaay dañuy comparer genre talent bu ñaari joueurs yi am ak carrière bu ñu réaliser man man am na benn sondage bu ma defoon maa ngi fàttali ko vidéo bi da dañoo ne Sadio maane prime ak Hazard prime kan moo gënoon ay je voyais beaucoup de beaucoup beaucoup de commentaires naan Sadio Mané Sadio Mané ma ne est que ñii seetaan nañ Eden Hazard Chelsea à son prime mais Eden Hazard day foudroyer Sadio Mané boobu mais bu ñu fekkee sur le plan carrière Sadio Mané carrière am xoolul bu Hazard loolu mooy comparaison. ma ma ma yokkal la ci mu Alioune. Neymar moo dàq fubal Cristiano Ronaldo bu dee fubal la ñuy wax aar fubal. jeex na Neymar non Neymar moo gën a technique. Cristiano Ronaldo Ronaldinho moo moo Cristiano kan moo dàq fubal Mohamed. du ben sa xam xam nga man su ma waxee su ma waxee rek xam dal non dama bëgg leral gi ñoon ñoon non moom naa xam ci compliqué su ma xol naa ci tel compliqué damay joxe exemple damay joxe exemple bu fekke bu fekkee ñoom am nañ xel bu fekke ñu xam nañ xel dama leen di jox exemple bu gëna a terre à terre maanaam dama xam nga sank avant may commencer dama joxe ben problème man l'entraînement tu le talent quand le talent ne s'entraîne pas waaw Ronaldinho bu dee football rek lañuy wax day bor Cristiano mën nako jangal football mais tey sañ nga taxaw taxaw ni Ronaldinho est meilleur joueur que ça Cristiano Ronaldo. mais voilà légui légui loolu boo boo Cristiano est meilleur que Ronaldinho fan nga ko tek waxo ni Cristiano manam artistiquement que ni Cristiano mo dàq football euh, Ronaldinho. mais Cristiano a réussi dans son monde footballistique Ronaldinho réussirul ceer ba. maanaam réussir bi simple rek kii yoon bi xam la la. ma jox la exemple pardon dernier exemple. Mm. bi Vinicius Junior kan mooy idolam du Neymar. waaw. may may ñu fii ak quelques mois ba yàlla def Vinicius Junior jël jël jël ballon d'or bu Vinicius jëlee ballon d'or sañ nga wax ni Neymar moo gën a réussir carrière am ko Vinicius. ko wax. parce que Vinicius a été meilleur joueur de la Ligue des champions. Vinicius bu jëlee ballon d'or te dèjà mi ngi ci deux Ligue des champions Neymar benn Ligue des la jël. fan nga mën a taxaw fan fan ngay taxaw ba justifier que ni Neymar moo mën Vinicius. l'histoire ne retient que les vainqueurs l'histoire wasalaam xam nga teh, kamu teh tahu, tey taxaw taxawaayu présentateur la taxaw mais man pour gitu, gitu, man gitu, football yooyu noonu kii moo daa football xam nga El Hadj dafa un jour ne footballistiquement stigma parna daa football Drogba maa daa football Eto'o loolu wax stigma parna mo sax li wa wax yaa ngi naan El Hadj dafa man mii pour man El Hadj moom moo daa bu fekkee football quoi xam nga football nag c'est ça dépend nit ki lan mooy mën a football déjà question déjà ngay xam lan mooy mën football El Hadj El Hadj est-ce que moo daa football technique bi football mais boo xoolee carrière moom saa yu euh, carrière Drogba moo gën a baax man pour man football loolu noonu ce sera toujours difficile Zidane Ronaldinho Pelé Maradona Cristiano Ronaldo Lionel Messi man pour man après Cristiano Ronaldo Messi Neymar moo waroon a téye pour man heure bii Neymar football da ko waroon a téye nii xam nga Neymar ak Mbappé du football l'instant yi. Neymar Neymar Mbappé ku daa football xam nga loolu lu mais xam nga ne Mbappé je le considère Mohamed man Neymar je le comme un gâchis du football. Neymar Neymar il a 32 ans Neymar il a 32 ans demoon Neymar moo waroon a téye nii football ci loxoom. non Neymar football football li muy def si football man j'étais man j'étais pas fan mais c'est ça mon frère c'est beneen affaire la quoi Neymar football gi ñi la ko a téye c'est c'est c'est le mais kii daal di naan Sadio Mané moom man kii Sadio Mané je trouve que Sénégal yi da ngeen xaw a xeeb Sadio Mané d'un côté quoi bu ngeen di waxee. a Sadio Mané de kii sànq dégg naa Sadio Mané mais Sadio Mané boobu genre xam nga da ngeen ko xeebal mu am mu baax la xeebal lañ. je pense pas Ameth du loolu Ameth du loolu. waaw lan la mais mais mais mhm. bu Chelsea Hazard à son prime. xam nga kan lañ ko doon tëkkale waaw man loolu y a débat quoi y à son prime était extraordinaire. mais Saliman à son prime mon frère c'est dama laaj dama dama laaj kii saison bien nekk non? noonu. Walker bi mu c'est... si Sadio Mané. wala C'est wala Otamendi wala Otamendi. pour couleur débat bii C'est ah, hmm? am jour bu may wax C'est bi duñ ko parce que ak Pelé C'est hmm? nañ ko. voilà Paye xam voilà parce que mm. Mohamed soo xamee dëgg xam ni moo inventé geste technique si football. waaw handicapé la woon ñaari tànk yi tolloo. Mm-hmm. tànk gauche bi moo sutee six centimètres beneen tànk bi. Mm-hmm. handicapé moo créé geste technique. Mm-hmm. saa waay football. jinne la si woon mun diri. lu tax essence sooy seetee joueurs yu mag yi parce que il a sombré après ay alcoolique le moudié doon amul woon hygiène de vie bu baax.

Messi moom man Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo ñii ñu bëri am intention ne Cristiano Ronaldo c'est un a travaillé pour am lu mu am alors que Messi c'est un don du dama dama jàpp ne Cristiano Ronaldo ñu ko tuddee Manchester United mais il était extraordinaire fu mu et man Cristiano Ronaldo boobu laa xam sax pas bu Real bi man donc man daa maa teg daa maa lu parce que pour man a dugal coup franc ñu pied gauche droit bon de mais ki ne Messi comme comme comme kii waxu dof ngay wax nii waxu dof que yow yow waxu fanatique ngay wax quoi ana yow wax si wax boobu chaque jour ñu xuloo si man ak yow wax si jubóo Messi Cristiano tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord que am na loo xam ne boo ko bëggee weddi da ngay sonn tout le monde est d'accord que Cristiano Ronaldo lépp lu mu am si football da koo liggéey da koo travailler da koo liggéey te Messi dafa am don loo xam ne même bu liggéeyul sax da ngay xool carrière yi neex na neex na comparé da ngay xool ñoom ñaar à leur âge Messi instant yi mag la te ba saa su téyee bal da ngay sentir jeune yi da ngay sentir na mën na si def dara mais Cristiano Ronaldo instant bii nii liggéey moo ko may li mu am moo tax bu commencé laal âge rek liggéey boobu noonu bu fi nekkatul day flop c'est ça di man Cristiano Ronaldo Europe yi passé